kaay ma wax la tey li nga xamante ne kenn du la ko wax ci mbirum entrepreneuriat salaamaaleykum maa ngi tudd Amina Diagne te ci ñaari at yi ci ginnaaw formé naa lu ëpp 500 personnes si mbirum entrepreneuriat bu dee da nga toog yaakaar ne ñàkk am formation moo tax ba yow mënuloo tàmbali si mbirum entrepreneuriat dafa mel ni rek nga yaakaar ne jàng ci livre yi naka lañuy ñuy doy na pour boo duggee ci biir ndox bi nga mën féey déedéet boo bëggee sos sa entreprise am loo xamante ne yaa ngi ciy dimbali sa bopp fii nga war a tàmbaliwee même bu dee xamaguloo nan ngay duggee ci mbay bi wala nag ngay duggee ci projet bi nga xamante ne intéressé na la boo seetee tey am na lenn loo xamante ne mën nga ko mën nga ko commencé jaay ci ñi nga xamante ne ñoo la wër te dina la indil xaalis foofu ngay tàmbalewee ñi nga xamante ne ñoo dem ba am ay xaalis yu bëri dañu tàmmalewee ci am 500 francs fii am junni fële waaye da ngay xool tay tay tay am na loo xamante ne mën nga ko am na loo xamante ne ñi nga xamante ne ñu ngi la wër ñu ngi koy jënd te jëndee wuñ ko fiñ ko war a jëndee kon yow boo xoolee si ñi la wër nga seetlu ne bu dee jigéen na am na ñoo xamante ne ñu ngi jënd cuuraay ñaar la soit da ngay dem ci ñi nga xamante ne ñu ngi jaay cuuraay cuuraay en gros nga jëndee fa cuuraay en gros nga commencé fa jaayaat wala nga defaral sa bopp sa cuuraay commencé ko jaay exemple bi may joxe nii dama bëgg a wax ne même bu dee yow sa passion wala lii nga bëgg leneen la tàmmaleel ak loo xamante ne mën na nekk tey loo xamante ne mën nga ko jënd di ko jaayaat mën nga dem marché kolobaan am loo fa jënd defaraat ko ba mu naay di ko jaayaat loolu lan la lay andil loolu moo lay dooleel ba nga xam yow ndax dëggantaan entrepreneuriat nekk na loo xamante ne bëgg nga ko ndax yow jaay bi nekk na loo xamante ne bëgg nga ko wala mën nga ko loolu moo lay permettre nga xam dëggantaan lan mooy lii entrepreneuriat di laaj tant que mënuloo yow dundal sa bopp tant que mënuloo yow am looy jaay ba mu mat cent mille wala ba mu mat un million bul sonal sa bopp di perte sa temps di naan damay xaar formation wala damay xaar sama projet bi wala damay xaar financement vous voulez entreprendre dang koy commencer ci lo xamantene tay mën na nekk mo lay ubbil ay buntu yu lolu moy permettre yow tamit lu bari lo xamantene war nga xam war nga ko xam ci mbirum entrepreneuriat expérience la koy may euh, ngi di bu baakha di dimanche prochain inshallah.